Makhtar Faye ak mission bi nga xamante ne dénk nañ ko ko ci CEDEAO ngir mu dox tànki jàmm suñu diggante ak euh, les pays du Sahel nga xamante ne génn nañu ñoom ci CEDEAO est-ce que du mission impossible ginnaaw ba président jëlaatee mission boobu confier ko kii di Abdoulaye Bathily ngir mu doxal ko ko il a super bien fait de de se débarrasser il s'est débarrassé subtilement de l'affaire mm -hmm. la vérité c'est ça Abdoulaye Bathily est très respecté en Afrique c'est c'est excellent c'est ça a une décision sage. moo di ne ok bàyyil ma bàyyi ki nga xam ne miin na diplomasi xam na si lu ma si xamul. mag la kilifa la bàyyi la yàgg na ci mu doxal ko. Abdoulaye Bathily pour faire le tour. mais tey ba si Bassirou Diomaye Diakhar fay bu ne woon bëri ne day dem Niger seeti Abdourahmane Tiani pour wax ko ne ko kaay duggaat CEDEAO du ko sax recevoir c'est valable pour Assimi Goïta c'est valable pour Ibrahim Traoré. La preuve, Ibrahim Traoré traite tout cela qui reste dans la CEDEAO ànd ak tubaab yi d'esclaves de salon neexut ci dégg-dégg. Mhm. mais bu fekkee nit da ngaa nangu nit def la jàmm mais yow mérité nga ñu tuddee la nu de. Mhm. heureusement que Ousmane Sonko avait fini de dire qu'il est temps que la France qu'il était temps que la France nous foute la paix mu di kàddu dëgg. Mhm. Pastef déroulé loolu africain yëpp ànd ak Pastef. bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye gagné qu'est-ce qui s'est passé. kii di waa Burkina waa Mali waa Niger ak pays africains yu bëri dañoo doon jubilé. Mhm. ils étaient aux anges super méga terra parce que la voilà ça change. ba ci prestation de serment bi gis nañ seeni présence. oui aujourd'hui on parle par exemple de Paul Biya 91 ans qui apparemment chercherait encore un autre mandat pendant que Joe Biden ans bàyyi Kamala Harris mu jël. Mhm. ça montre comment nos nos nos dirigeants ils sont loolu nag paramètres yooyu dafa nekk di changer am nag ñu lànk ne du changer moo tax Bassirou Diomaye Diakhar fay le président la République a super bien fait de laisser la tâche à Abdoulaye Bathily moom mu dem gérer que mu réussir que mu bañ a réussir du metti mhm. par contre moom le président sénégalais ak fi dëkk bi toll mhm. la posture de Guy Marius Sagna c'est la posture de Bassirou Diomaye Diakhar fay in ci benn sens c'est la posture de Ousmane Sonko c'est la posture du Pastef c'est la posture de bon gens au Sénégal de la majorité des Sénégalais sauf que stratégiquement comme on nous dira en termes de diplomatie il faut peut-être rafetal am noo doxalee mais aujourd'hui mu yéex mu gaaw muy Sénégal di beneen dëkk CEDEAO day soppeeku bàyyi force ci beneen sens sauf que nag kar nekk ca digg ba moom parewul pour loolu mu ni France moo tax la réalité c'est boobu nga xam ne fa la nekk di jëm Et Tchad va y arriver. Si vous prenez le Tchad, vous irez au Tchad. Le Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en de négocier une coopération avec les Russes. Mm -hmm. Malgré ses 91 ans, Paul Biya a compris. Mm -hmm. Lui qui habite au lac Velay ca ca Suisse. Qu'est-ce qu'il fait? président bu dëkk Suisse ba pare di présider Cameroun depuis des années. Huit chefs d'État français fekk nañ ko. Mhm. mais terewul il a compris les enjeux aujourd'hui dafa évoluer ba di xool sa collaboration ak la Russie. Mhm. France di ci la CEMAC ak la BCEAO muy BCEAO fii. Mhm. ak CEDEAO fii fële ci Afrique centrale. ils sont en train de revoir la leur copie aussi. Mhm. tubaab bi di siisu donc tubaab bi dafa nekk Afrique centrale parce qu'il y a du diamant là-bas nekk Afrique euh, de l'Ouest parce que yàlla a le Sahel. Mhm. de ressources mais incroyables. donc France li mu bëgg mënut a wéy faw mu dàkk. moo tax le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dénk na ko Abdoulaye Bathily mais de fond en l' alliance des états du Sahel ñoom dem nañu de. alliance des états du Sahel est ce que réewum Sénégal du yàgg que ni dafay dem rejoindre leen. mais mais xam nga tey jii nii ci coopération bilatérale. Mhm. Sénégal war na mën a ubbil géejam Mali ubbil ko Burkina ubbil ko Niger ak keneen ak keneen mais France toujours da ci def loxoom qui gère le port de Dakar Bolloré Vincent qu'est-ce qu'il va falloir faire comment on va s'y prendre lan la ñu war a def libre. sauf que libre guñu. Mm-hmm. nous ne sommes pas encore libres. donc tey Sénégal mënul sax tëb di wax waxi AES Sénégal dafa nekk ci posture nous sommes le grand Sénégal il va falloir qu'on kon aille de façon prudente xool et cetera et cetera. alors qu'aujourd'hui le Sénégal la Ousmane Sonko doon wax moo di dëgg il faut que ñu génn ci suñu monnaie bi franc CFA bi il faut ñu mhm. ñu génn ci monnaie bi ñu bëgg a dëpp tuddee ko éco alors que c'est chose il faut que ñu récupérer suñu ay business récupérer suñu alal ji nekk ci biti et cetera il faut se libérer un esclave qui refuse de se libérer mérite son statut restera toujours un esclave mu ngi noonu léegi yéen a ngi ci